waaw ah, merci beaucoup bon je pense que moom banque ñëpp a ngi koy suivre parce que ñun aussi sénégalais la ñu. ñu si jàpp mooy euh, convocation journaliste convocation journaliste yi. bon nekk naa aussi bon day nekk loo xam ne aussi je pense que journaliste comme nu ko bii dama waxee ñun ñëpp personne n'est de la loi man loolu laa jàpp. Mhm. journaliste moom bu demee bay bind rek lépp loo xam ne mu koy bind nag bu ñu ko wee na ko mën a prouver n'est-ce pas parce que nit ñi aussi dañu am ay njaboot.